yi ma ngi leen di siyaar de ma ngi leen siar di baalu ak ñepp te baalu ak ñepp ko xamni def na la lu la metti rek ma ngi lay jéggul mais gaay gën leen sama digënté ak Sadio Mané gën leen sama digënté ak Cheikhou Kouyaté gën leen sama digënté ak crépé jaata mbay jañ Diagne ah, Idrissa Gana Gueye ah, ah, Mame Birame Diouf ak kanati waay ak kanati samay xarit lañ ak Pape Alioune Ndiaye samay xarit lañ luma neex la leen wax Deng, nga Krépin rek lim jappé ci grand théâtre gi man ko waxé ngeen rus gën leen ci man kay fima djoumé te bëgg ngeen baal ma fa mo ci salu 6 man dama ëppal Aliou Cissé gën liste bi 25, yi man nako ko 6 salu 6 lan lañ koy doyé xolam match bi salu 6 def dem wa man est-ce que war wax ji wala ma wax lu sama yon nek ma ngi jégalu dal gay ma ngi jégalu jégal leen ma dal <laughs> vendredi gaynde dañuy gagner Nino grand théâtre yengol ko yengotu A été vendredi 5 juillet après le match du Sénégal c'est le grand théâtre Abba Show Dakar MDR ebége eh ben, <laughs>